Because the man, there were people around him pour di ko force muy nit. dañ ko daan dañ ko daan kona gis nga rey yu bari yi man am not his lawyer but i can tell you that many of them happened in a very flimsy manner was not in a very vibrating this thing di wax ne dem leen rey leen rey leen ñenn yi initiative sir. Hmm. nga am benn ennemi nga xam ne wax na dara loo xam ne président bi bëgg ko rek nga lébul ko something yóbbu ko dugal ko kaso some of them were very powerful they were locking up people without him knowing. Without Jammeh knowing. Without Jammeh knowing. That I can say. Huh? I'm not defending him, as I said. And I am very much saddened. i saddened di fag ne ak yu bari ñoo wax ci affaire am ah dafa dafa dafa dafa dafa tax nit ñu foog ne he's a big criminal he was a he a human being I said it the other day at the radio I have seen gis naa jaame many times rongoñam yi di génn yaa ngi jaame di jooy. jooy wax na ah, kon yow déglu la sama interview bi ko. de de ñu ngi nii Gambian waaw de de lu war a jooy. moom dafa he benn bés maa ngi àndoon ak moom ci euh, ci ci benn ci place yu mu doon foog naa dobong la doon visite wala beneen dëkkat ci foofu la doon visite. den xale yi ñëw school bi ñëw pour pour pour pour welcome him yaa ngi dégg. all, nearly 80% of the school children, all of them were barefoot. Oh. loolu daf be wrong bii rongoñam yi di man gis naa rongoñ yi more than three times so he's a human being he feels but you should not forget in that position the position boobu image being a create of strength and internally linga feel are two different things. so yow. yenn dafa nekk the position boo xam ne dañ koo for example jëlal forty Ghanaians and all these type of people ñi nga xam ne daf daf then dañ leen rey. yow from the beginning to the end he was involved No, then you tiital ko you ñëwee tiital la ne rebel lañ Then you then invite ne keneen a ngi prépare coup d'état So indil nañ leen fetel su gisee ngeen ak seen sandwiches yi nii dañoo jéem a camouflage dinañ leen jox fetel pour ñu rey ah ça we have to eliminate these people perhaps loolu lañ wax nekkuma fa woon mm-hmm. ah, and what will he do they want to come and kill me ni mu tàngee noonu leen he was no more in control otherwise the man I know and for whom I have been working as a diplomat we will never take such a callous decision. So you're also...